waaw waxtu bi nag xoj nañu xawma ndax dañuy. Euh, waaw waxtu bi de xoj nañu. Hmm. Euh, ndax dañ ko ci jàmbam déet ko ci jàmba rek. jàmbal na en une minute ay ca topp Modou ñu dem ak ma jàmbal. pour bi nag xool ba mooy scandale bu gën a rëy Sénégal scandale foncier bu gën a rëy Sénégal depuis bi ñu amee indépendance ba tey gars yi dañuy wax ndengaleer ndengaleer parce que bon boobu moo gënoon siiw mais projet bi nag xool ba moo gën a scandale problème foncier yu Sénégal mës a am yëpp on peut pas comprendre euh, plus de 3000 hectares nga jël ko ci ay paysans yi xam ne ñu moom lañ yaakaaroon pour dund d'abord moom lañ yaakaar pour euh, des zones d'extension ci seen village yi moom lañ yaakaar pour survivre ñun Diass on est père ki yow lay wut nañu régler problème mu jeex proposé ko moom ma defal procuration sama doom ni ko kii dootuma wax ak moom yow toppatoo ko sama doom daal di ma père ki yow lay wut nañu régler problème mu jeex proposé ko kat moom ma ko proposé quatre-vingt-dix millions ak benn terrain de six mille mètres carrés bu nekk dagga xol ko bu nekk bu nekk ci trop pour rien pour régler problème mu ni ko bëggul lool voilà alaaji dégg nga moo koy wax ci ndorteel li six mille mètres carrés la bu concerné Madiambal ak doomam bu ñu wax ne dañ ko jëlee nangoo ci ay villageois yu nekk fële ca booru Diass moom nag la ñu indi ci table bi ma dégg nga lu mu ci expliqué ak doomam ji. waa xale boobu nga mooy jeune bi nga gis noonu. Mm-hmm. benn sénégalais la boo xamante ne bi nee na ci six mille six mille mètres yooyu. am na ci deux carré yoo xamante ni bii moomeelu boppam la ba noppi euh, majambal nangu ko six mille mètres carrés hmm. c'est extraordinaire c'est que Madiambal non seulement sax hmm. li waroon na ko rusa wax hmm. waaw te xool ko nee na mu defal doomam doom ji proposé benn waay boo xamante bi muy problème mu terrain bu mu amoon fii proposé na ko six mille mètres carrés fële boole ko jox ko quatre-vingt-dix millions Madiambal hmm. journalam bi ah, mooy génne mooy génne loolu am na moo tax Madiambal bu am na comportement yoo xam ne bu ko amee tamit bu mu bett sénégalais yi tamit doxalinam ni muy doxalee ni muy doxalee maanaam boo gisee ni muy accroché wu ak wax yi nga xamante ne bi mi ngi koy wax parce que xam nañ ni ñi ngi ci loo xamante ni bi bés bu réew mi tegoo ci seraatal mustaqim seen affaire dootul dox danañ am problème dañuy nangu sax la nga xamante ni moom la ñu ki six mille mètres carrés xam nga ni waa dëkk boobu fi mu toll ni ñi ngi ne teg parce que gis nga li booy ba scandale foncier bu gën a garaaw bi kenn mosu koo gis mhm. comprendre nga mhm. léegi ñu jël ko boole ko quatre-vingt-dix millions Madiambal <laughs> Madiambal bari na ah, xaalis de. torop macha allah. yëgalu ko yaramam sax nee na sama doom gis nga ni muy ñàkkalee fayda quatre-vingt-dix million yi ak six mille mètres carrés yi maanaam yi nga xamante moom la joxoon doomam pour mu dem liggéey ci problème bi. ma c'est lii rek moo war a tax sénégalais yi. Mm-hmm. yeewu tuuti. non yu mel nii non yàlla moo ñuy dimbali. Mm. xam nga lu tax. Mm. parce que lii muy wax nii lu mu waroon a nëbb la. Mm. waru ko woon a wax ay nit a waroon a dem sax gëstu ba gis ko ñëw daal di koy wax mais gis nga sunu boroom moo lay xirtal taaj la nga di ko wax sénégalais weer sa bopp lii nag dafa war a tax nag sénégalais yi nag daa dee xam ni hmm. réew mi mën naa neex mais na fekk sénégalais yëpp tamit daa dee def fulla ak hmm. fayda ci li nga xam ni moom lañ jëm muy élection yi jëm jox ko yitte bu baax a baax a baax. parce que dafa am loo xam ni dafa war a dakk muy paajoo ma jigéen réew kenn du ko seddoo déedéet. réew mi ñun ñëpp dañ fee am cër parce que fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee doomu kenn gënu fi doomu kenn ñun ñëpp ay sénégalais lañ. te ni ñu doonee ay sénégalais. Mm-hmm. lépp loo xam ni koomu Sénégal la. sénégalais bu ne war na caa gis boppam mais ma jigéen da ngay gis nit ñoo xam ni ba ñu juddoo ba nëgë ni dañoo fekk ndey di luye bàyyi di luye ñu judd di luye jóge fi seeni doom continuer di luye hmm. jaaduwul jaaduwul am na loo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla jaaduwul ci réew mi te gis nga li nga xamante ni moo fi xew hmm. nan la benn doomu aadama ginnaaw bi mu amee yu baree bari yu mu dëkk ak yu mu yor am fële six mille mètres carrés di ko xëccoo boo xamante ni no xëcc maanaam boo xam ne bi jël nga ko ba noppi te doyewoo ko dara maanaam di ko regle ay problème bay seeni mango di dem di ko jaay ci def lu ne voilà donc yi mooy yi nga xam ni mooy problème yi donc ñuy dellu rek mm. euh, di wax ni sénégalais yi en tout cas jot na ngir sénégalais yi ci seen jëmmi bopp xam ne nag wax dëgg fa yàlla réew yi ñuy mbëkk di dem bu ñu liggéeyee sunu réew mi mën nañoo bañ a soxlaati lu bari.